Cap Cool ñu yeewu euh, le matin de l'installation de de l'Assemblée nationale euh, le président il le sort du du du chapeau tout le monde di dem di war le le monsieur était tellement discret ñu bari xàmmew ñu ko woon mais c'est un homme de base il a une base euh, politique à à à à Richard Toll et puis un compagnon de longue date de de de Macky Sall alors lan moo tax nit ñi di indi Amadou Mame Diop dans le débat et je ne pense pas qu'il soit intéressé bon enfin qui qui est intéressé xane ku nekk yaa xam sa bopp xam nga. en tout cas moom doxewu ko waxee. doxewu ko waxewu ko mosul doxee président assemblée nationale waxewu ko bon man je le connaissais vraiment pas bi koy génne assemblée nationale. wax mm-hmm. ah, jox rek exemple. franchement c'est à quelques heures de la nomination. da koy doog hmm, de de, la nomination ou euh, sa proposition ah laa xam ne Amadou Mame Diop la j'ai recherché. c'est qui j'ai trouvé que c'était un candidat crédible et effectivement assemblée nationale lañ ko fa jox yelloo na ko mën na ko fees na place bi bon maintenant est-ce que loolu c'est suffisant pour être président de la république xam nga nit ki mën naa am ay talent caché tant que waneewu ko rek doo ko xam. en tout cas l'Assemblée il a beaucoup de retenue. il est très calme il, est même plus calme que Pa que que Pa li muy dégg yëpp man faa dama dama koy yërëm. mais il a l'expérience parce que il a fait deux mandats parlementaires xam na environnement bi aussi ku nekk personnalité bu nekk ku nekk man la fees na place bi. xam nga fees jëmmal jëmmal na place bi mat na liñ ko liñ koy doyee mat na kilifa. assemblée nationale bi ñu ko doon ñu